Barthélemy Diaz bokkut ak ñooñu ñuy gën kaso di tëj seen gémmiñ maire bu Mermoz Sacré-Cœur mom délo bu ci mboy mboy ga Barthélemy Diaz di fëttali né Khalifa Sall dina présenté wu présidentiel yu février 2019 Khalifa Sall bu ci Yalla andé dina bokk ci élection président pour 2019 bokk ci farandow Khalifa yu gën deggu dëggu Barthélemy Diaz moom ne amul sikki sak ne Khalifa Sall dina jëlee ndam ci élection yoyu lé su neexee yalla tamit te mu neex tamit askanu Sénégal dina nekk président du Sénégal te Lolo, ñun xam nañ ko moom Khalifa Sall amu ci xel ñaar président Macky Sall xam politique xam élection te tey su demee ba di dëkkaloo Khalifa Sall fu mu parce que Khalifa Sall suis borom Dakar. muy ci ay firnde Dakar mu ci capital bi. dafa am borom Dakar dina Dakar su Sénégal parce que la politique Sénégal c'est pourquoi nous exigeons nous que toutes les dispositions pour que tous les droits de Khalifa Sall soit respecté lors de l'élection présidentielle. Même si Kasobi, il a droit à la, il a droit de pouvoir exercer ce que lui confère la loi électorale. Donc la loi électorale may daal nañ ko may. gannaaw juroom benn weer yu mu passé ci kaso gi ngir sofontal bu mu def euh, décision justice Barthélémy Diaz ne du delu ginnaaw di waaye tamit nag di leeral li mu waxoon. nee naa juge yi man lu ma wax su ma baat ci kaw du ma dellu ginnaaw wante musuma tudd magistrature musuma tudd magistrat man j'ai parlé de la magistrature et j'ai parlé des magistrats magistrature nak dafa am nu ñu koy bindé magistrature tamit mo am nu ñu koy bindé tay ñun lu ñuy ñaanu Sénégal moy magistrature bobu magistrature moy fu may waxee rek ku jiitee réew mi tay dafa am tour tour bobu su ngeen ci yokkee astrure rek di ngeen am magistrature moom laa doon wax ci tribunal mais même juge yooyu tamit dégguñu fu ma waxee. Barthélemy Dias dina uyu ji juróom-ñaari fan ci weeru octobre bi ci procès en appel bu affaire Ndiaga Diouf avocat bi di maître El Hadj di dalal xel yi ne dara du ci tukkee.